daal di jaajëfal nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jege rawatina umma islamique musulman yi ci occasion tam xarit bi mu ñaana leen nag daal di jéggalu di leen xamal ne pare na tey ma ngir yóbbu Sénégal bu sori foo xamante ne daal nañ fa àgg loolu sax nag bokk na ci waxtaan euh, li nga xam ne rek ak nomination yees yoo xam ne rek daal di nañ ko nemmeeku. ni ki démb ku mel ne nag Mame Ngor kii Mame Ngor Ngom nag moom la ñu fal ci bopp bureau de l' information communication bu gouvernement bu Sénégal journaliste bi Mame Ngor Ngom nag dana daal ji jiite jamono ji lu jëm ci wàllum communication gouvernementale ancien étudiant la woon bu sesti moom nag jot nañ ko fal directeur général bu bureau de l' ak bu communication gouvernement loolu la ñu daal di xamle ci communiqué bi beneen nomination boo xamante ni daal nañ ko gis Dieng Diallo Fall nag nañ ko. ca direction générale des élections moom nag am na ko ko fa wutu biram seen moo ko fa wutu nekk magistrat nag waaye tamit directeur de formation bu communication direction générale des élections daal dina fa wutu nag contrôleur général bu police Thiendella Fall ca boppu DGE monsieur Birame Sène nag magistrat nag moo daal di wutu jamono ji foofee lépp lu jëm ci wàllum communication loolee tamit bokk na ci lu ci li nga xam ne moo waral ay nomination yu ñu daal di ko ci bopp nag fi nga xamante ne rek mooy conseil des ministres bi nga xam ne ñu ngi ko doon daal di amal Bassirou Diomaye fay nag mu ngi soññaate gouvernement am mu daal di góorgóorlu fexe nag nag ba lépp li nga xam ne dig nañ ko askan ñu def ko bokk na ci politique générale bu Ousmane dina ko amal nag ci assemblée nationale ndaxte daa mel ne mbir ni yemb na ba noppi. jamono boobee rek wax nag ci wàllum dund bu cher bi ginnaaw ba ci njiité réew mi Bassirou Diomaye Faye jubloo ci wàññi nag yenn njëgu dund yi jamono ji nag mu ngi attaqué lu jëm ci wàllum location interview bi nga xamante ne jotoon na ko amal ak média nationaux samedi bi ñu weesu président Bassirou Diomaye Faye jotoon na xam le rek daañu wàññi nag lu jëm ci cherté de la vie bu koy wax lépp lu laalee askan wi lu jëm ci denrée alimentaire yi jot na nag attaqué lu jëm jamono ji wàllum question euh, nag lii di luwaas doon na loo xamante ne tamit tere na askan ñuy nelaw rawatina ñi nga xam ne dañoo rek loué conseil des ministres ni ki démb nag président Bassirou Diomaye Faye mi ngi soññaat élimaane jawriñ ñi Ousmane Sonko ñu engagé wu ci ci fas yéene rek ak ministre yi nga xamante ne ñoo ci àddu ak association consommateur bu Sénégal ñu daal di waxtaan jël ay matuwaay yoo xamante ne daal dinañ wàññi wàllum location fii ci Sénégal ndaxte doon na loo xamante ne daal bokk na ci lu gën a sonal askan wi promotion wàllum politique accès logement sociaux yi nga xam ne def na ko maanaam tabax ay bund ay kër séddale kanam joo xamante ne luñ cay fay du bëri loolee tamit Bassirou Diomaye Faye nee na ab euh, urgence la boo xamante ni dinañ ci jël matuwaayam ci perspective ba muy woyal nag ay waxtaanam jot na soññaa ci jëriñ bu ñu ministre bi li ak la ci àddu secrétaire lu jëm ci wàll urbanisme logement ñoom ñëpp nag jot na leen rek woo ñoom ñu àddu ci SICAP ak ñi di asalem mission la boo xamante ne dañ koy def ngir askan wi ñëpp ñi ci am jafe-jafe ñu am promotion ay logement yu rafet yu jékk yoo xamante ne daal dinañ leen ko contrat boo xamante ni askan wi duñ ci sonn nañ dinañ ko fay ci anam joo xamante ni ah, du leen sonnal benn yoon ba tey rek nag ci loolee njiitare mi Bassirou Diomaye Faye rek daal di wéyal kàddum nee na nag jot na insister ci ñu nag lu jëm ci réalisation cadastre universel nécessité la boo xamante ne dafay permettre ñu daal di jàppale ni ñu ci wàllum coopération ak habitat tabax bi daal di nekk loo xam ne dina yomb njëgu matériel yi ñu wàññi bu ko defee logement na a fexe jënd teeram tabax ba noppi man cee dëkk ci ci noo xamante ne daal di ko fekk ci lu bëri ba rek ci xibaar yi ñu wutali nag ca Kolda foofu nag taw yu métti yi fa am am na ñaari xale ñu si ñàkk seeni i bakkan taw yu métti yi nga xam ne wadd na nit ki démb ca Kolda ci àllarba bi nag lañu mën a wax nag def na ñaari nit ñu si ñàkk seen i bakkan ñoom ñëpp nag ay tuut tànk lañ dañoo lab nag ci benn rivière rivière maanaam rek benn dex bu Saare Jamfo benn gox ci commune Saare bi ji noonu journal bi di xamal ni benn groupe pàcc dañ doon rek fii ci ndox mi waaye nag mujj na leen yóbbu. benn xale bu góor la ñaar la ci ñoom ca booru 10 heures du matin ci quartier Médina Chérif nag bu commune bu Kolda ñaar tàngoom nag dañ doon jóge ca rivière ba ca dex ba waaye nag ñoom ci ay jooy la ñu yegsee seeni kër wax ko seeni wajur ci la ñu daal di yébaan mbir mi dem nañu nag ngir sauver leen askan wa ak sapeur pompier waaye nag mujjanteel bi mbir mi dafa apoon doole ba xale mujj ne naa sauver ñoom ñëpp ñoo ñàkk seeni bakkan seen i néew nag ñu ngi ko yóbbu ci hôpital régional bu nekk ca gox ga waajuru ndongo yooyu jot nañu avertir ñu daal di vacances yi ñu gën a vigilant ba bàyyi xal xale yi te di leen tere nag buy taw ñu génn di ci sangu wala ñu am leneen luñ ciy def ndaxte yenn saa ndox mi day ànd ak doole goo xamante ne rek kàttan googu xale yi munu ko àttan leneen ci ay xibaar bokk na ci mbirum escroquerie bi ñu toppee woon Marilo di doomu Ismaïla Lo moom nag septembre bi ñu jublu lañu fas yéene wu àtt ci mbiram ak fàttali doomu Ismaïla Lo bi ñu ngi koy toppee ci wàllum escroquerie abus de confiance ci lu toll ci six cent millions de francs CFA ci bañ ko fekkee ci moom buñ ci Les Échos moom mi mi nga xam ne rek ni jot na rek def apparition bu njëkk ci box ci alxamis bi waaye nag ci bon yu mu toog doomu Ismaïla Lo bi nag juróomi fan ci weeru septembre nañ ko attewaat ci kanamu procureur de la république loolee nekk ab xibaar leneen tamit loo xam ne mën nañ ci wax rek bokk na ci li nga xamante ne rek moo jëm ci taxawu Sénégal am na nekk cadre goo xamante ne jot na démissionné ci rang wu Khalifa Sall mouvement ànd soppi Thiès bi nga xamante ne jaxate ma jaxate ñaaw moo ko daal di jiite génn na moom ma jaxate ñaaw ci plateforme taxawu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci Les Échos moom ñaa nag dafa na rek nag nekk moom kese participer ci manière boo xamante ni di ma tabax wàllum démocratie waaye nag joge na ci euh, lii di taxawu Sénégal. ci ndax manque de finance ak leneen plan taxawu Sénégal mooy mbëbët bi waral rek mu daal di fa wàllum xibaar daal dina bokk rek ci kii Sen TV moom nag jamono ji ci démission yu métti lañ fa nemmeeku kii di Serigne Saliou Guèye nag ak Abdoul Mbow ñoom dañ cay génn journaliste ci Serigne Saliou Guèye jot na xam ne ci alxamis bi ne day jóge ah, ci groupe des médias jot na nag rendre démission ci niveau euh, de ci directeur général bi nee na jot na à terme nag collaboration bu mu amaloon ak ñi di Sen TV mu dàkkal ko moom chroniqueur bu mu melaan bi jot na xam ne journaliste bi jotul nag expliquer lu leer lan moo war a tax rek mu démissionné waaye daal jot na xam xamle ne waxtaan ak responsable groupe Futurs Médias ba noppi nag amul benn pression buñ ko teg bu tax mu bàyyi li tax nag mu dem dafa jot rek nag ndax yàgg na di liggéey ak ñoom Ah, jamono jojee Pape Alé Niang nag mi ngi daal di yàkkamti waa of nag ñu fësal nag ah, lii di ah, li nga xamante ne wàllum fiscalité procureur nag na si jël ay matuwaayam ndax rek rapport yi ñu fësal ko ginaa ba ñu fësalee publication rapport of nag nag directeur général bu RTS daal dina jël wàllam ci sàkku procureur rek de la république mu fas yéene activé mbir mi daal daal mu baral ko ndax rek nag kuñ ci teg wala ku ci laale nga xam noo def buñ sukkandikoo ci Pape Alé ñi nga xamante ne dañ leen a tudd ci mbir mi faw rek ñu àtte leen ndaxte nag jaarale ko ci compte Twitter am moom nag mi ngi woo euh, ñii di euh, procureur de la république si bi jege lool nag nguur gi nee nag ñeent fukk ak juróomi rapport yi nga xam ne of nag jot na ko fësal ci dugal ko buñ ko bàyyi ci tiroir procureur nañ ko génne ndax ñu teg loxo képp ki nga xam ne laale nga ci wala rek nag ñu seet naka la ñuy def képp koo xam ne bokk na ci daal boo moytu di nga dem wuyu ji ci kanamu yoon waaye tamit dina indi ay